léegi yow bu ñu newoon yow dangay dëkk da dëkk si bërëb nit ñi am dese ci li ma xamoon avant Sénégal avant man waxuma Sénégalu tey bii nit ki amoon xewam wala mariage am sax du xew ndax xam nga mariage munoo ko mariage munoo ko ñun si man si lu ñu xam ci suñu cosaan mariage buñ ko annoncé même ñit faatu si même si heure mariage bi ah, mariage bi day am kenn du ko reporter mais duñu def mbumbaay avant noonu ma la nit ñi doon révolté si koñ yi ñi da ngay gis ñit am naqar keneen amoon xewam xew bi dañ koy jël teg si suuf buñ ko duñ ko mën a duñ ko mën a fomb de mais dañ koy def ak sutura am na ñeneen sax bu ñu mënee sax ñu fomb ndax respect seen dëkkandoo mais léegi ma laaj leen léegi ñi nga xam ne dañ leen a fréquenté ñoom ñu ne xamante nañ pendant des années mais man dama leen bëgg laate ndax ñoom éducation yi ñu amoon ou ñoom c'est des sénégalais ou sont pas des sénégalais. <laughs> mais loolu laa bëgg a man. parce que man dama gis ni li amna na ku ci nek solo la ku nekk mu ngi def ay yitteem ki def xef ba may xam question bi sax man dama regretter lu tax ma posé ko parce que nit ki dee na sax ñom ñi xef di tak ay lunettes yo xamni ken xamul donc je crois que sama question mom war ma kon poser parce que amna sama réponse mom wala mom lamay yalla yàlla bon en fait question c'est même pas une question que tu poses c'est une indignation moom ngay wane nii rek. Mm-hmm. indignation bi nga am ba su ma gisee ñu naan dañuy fêter ay anniversaire dem ci kii bi xam nga voilà du truc comme ça daf may jaaxal sax les gens qui étaient très proches du truc ou qui l'ont fréquenté wala yooyu amagul 40 jours léegi. mais nag gis nga wutal sànq li nga doon wax noonu ah gis nga fii. sama benn tonton mës na mës na mës na dugg ci benn teendaay di jënd paaka. waaw. kii jaay paaka xam day jaay ay pistolet ay armes ak yooyu. Mm-hmm. xool da ngaa laaj pièce moo tonton bi xulli ko bëtam mu ne ko ah mu ne ko waaw. mu ne ko waaw baax na maa ngi ñëwaat daal di dem. <laughs> gis nga arme waroo ñëw ñu jaay la ko noonu nga dem. du yoon. Mm-hmm. mais xoolal fii fi xew tabaski. ken ken ken waru ko jaay non rek nga dem wor wor wor wóoru Sénégal dañ fa ray yepp paaka la leen di hmm ak pistolet yu amul identification artisanal waaw hmm fa garaaw léegi Balla Ndiaye Balla Ndiaye ak nit ni mu mel hmm mi gis boru tabaski nga gis ñiy jaay jaasi ay paaka bu nekk lay def wër ci dëkk bi hmm.

leneen mënu ko lu nit xanaa ak jinne di may jinne yi duñ tabax nii ñii ñun ñuy gis donc loolu nit lu def loo ba pare ak ak merveille yi am ci àdduna ba pare di am ay comportement wu mala c'est incroyable c'est-à-dire que ay ay ay ay in contradiction la yoo xam ne doo ko comprendre naka lay nit di demee ba jëy ñàkk son humanité di ko ñàkk petit à petit ben animal di feñ ci mom te mu yoru jëmm nit ñi di ko defloo yo xamé ni ay reuy yo xamé ne deug na non li nit du def li ko nit ko and ak xelam ko du def li te nit daf koy def di dem yonam di dox di dem Afrique tamit prise en charge bon yooyu yëpp problème développement la ak bon dubai bi duñu duñu sonal ci yoy ba nga pendant les 100 ans derniers 100 dernières années là diñ doon gérer rek nii ñu nekk ci dëkk di dem ki ñëw yooyu amuñu woon réew république amu fi dara amu fi woon lu ñu doon gérer nii rek voilà ñuy dem mais mënoo imaginer que ñun ñu am des handicapés mentaux ñuy dox ci dëkk bi nii comme ça wóorul sax da ngay nit mën na ci am crise rek song la gaañ la def la dara parce que kenn du leen jël en charge très tôt ñu bàyyi la noonu les gens hyper intelligents qui ont des quotients intellectuels incroyables ñu bàyyi leen ci classe ñuy dem ba bàyyi école nekk di traîner ñu waroon yor réew mi nga xam ne ñoo nekk war a nekk savant wu réew mi ñoom la ñu mujj di taxawal ci mbedd mi. lépp rek éducation la. dafa war Aziz Aziz deewagut bañ doon entraîner bi ko laay hmm. nangoo ci loxoom hmm. la ko teg te ko tuddee na Aziz doom. nga ne fa lan nangoo. saal bi ñu doon saal bi Aziz doon entraîner. bi ko Ananas nango ci Balla Ndiaye lako tek ci loxo Balla Ndiaye ta Balla Ndiaye moom tuddee Aziz dom ah bon. loolu na yalla c'est des hypocrites. ils ne sont pas fidèles. ils sont pas ils sont pas loyal ils sont pas loyal ngay def ma échappé yooyu mom c'est la pire. loolu hein ah, gis na Balla Ndiaye man li tax ma xamone Aziz. Balla Ndiaye mu njëkk tax ma xam Aziz bobu Balla Ndiaye mu dëkk bir école 1. Aziz Diop yaa ngi dégg moo tax man sànq ma ne woon grand AB comme yaa ngi wax ak Balla njaay yow nañu expliquer lan moo tax mu def loolu en fait pour ñun tamit ñu xam bu fekkente ne nag seen milieu boobu noonu milieu lekkante la ñu xam ne noo te lâche ku ci nekk nag

gis nga bu defee taxaw seetlu def ay réflexion par rapport ak allaitement bi boo dee ay 1990 la allaitement au biberon commencé dugg Sénégal mu gën a accentué wu nag ay vers 2000 te boo dee ñu juddoo woon 2000 instant bi ñoo am ay 24 ans wala boog ay 23 ans jëm suuf te ñaawteef yu bëree bëree bëree bëree bëri xale yooyu la fi mu nekk nii on perd nos valeurs. la jeunesse n'a plus de repères on n'a plus de référence te valeur yooyu ñuy perdre moo tax tey jii lu ci bëree bëree bëree bëri di ñu daan ndaxte gis nga ki nga xamante ne que dafa nàmp meewu nag wala boog meewu bàyyi ma mais comportement bàyyi ma lay am liñ naan ay wenn dafa fort deret dafa fort loolu du ay waxu kii nii loolu wax bu avéré la wax bu dëggantaan njaay la boo dee xool sunu mag ñi ak ñoo baax mag ñi ak ñoo am valeur et malheureusement ñi nga xamante ne que ñooy topp mag ñi wala boog ñooy déglu mag ñi ci xale yi ñu tuuti la ba tey am na ay xale yoo xamante ne que dañoo garder ba tey valeur mag ñi mais bariwul parce que amatuñu temps sax toog ak mag ñi pour mag ñi di leen bàyyi yenn valeur yi souvent dañu doon wax naan ay teraanga ay sutura ay kersa ay masla dañoo dem ba déggatuñu sax olof ba yenn mooy instant bii nii dañ koy commencé di ko jaxase. da ngay dugg Facebook dégg ko naan masla hypocrisie la mais le masla bi ñu doon wax bu njëkk ba ça n'a rien ça n'a absolument rien à voir ak hypocrisie malheureusement ñun dégguñu olof dégguñu tubaab bëgg yenn expression yi dañuy jël dañ koy mal dañ koy mal traduire et c'est malheureux c'est malheureux donc juste pour répondre ci li Freeman wax on a un un nouveau type de Sénégal maa ngi jégalu kàddu yi ñu wàcceewaat ma maa ngi jégalu de. mënoo toog rek. damay liggéey. waaw maa ngi jégalu de euh, si génn fi mu waxee moo tax ma yéegaat. foo leen xoolee meew yu mujj yi sax yi xale yi di naan am na luñ ci def euh, xawma lami tóoroo bugguma wax espère muy ëpp mais euh, bugg trouvé moo bi moo ci am si si tóoroo lay jóge def ko si boo leen xoolee xale yi mujj yi juddu quand on parle aussi des bébés Covid vous voyez la différence bébé qui du période du Covid c'est un comportement c'est boppam ça beaucoup ak comportement yeneen xale yi on parle des bébés de 2022 aussi Nous c'est une façon de façon comportement C'est loolu yep lan moo ko def nit fait. def je parle quand je dis nit moo ko def je parle des occidentaux seeni pexe ak Nous avons fait nekk di ko infliger

c'est-à-dire que xam OGM yi wax par exemple OGM euh, OGM génétiquement modifié. les organismes modifiés des comportements un peu bestiaux quoi effectivement le génération yi wax depuis commencé di jël biberon yi yi def di de croissance et tout ça def leen di indil ay comportement yi xoolal da ngay gis nit ñi ni ñuy def seen yaram yi léegi xoolal nit ñi ñuy def seen yaram yi rek ak ay jaaru partout làmmiñ ci ki doo comprendre lii pour lan

ñu ngi manipuler suñu cerveau et on s'en rend même pas compte c'est-à-dire euh, léegi boo leen xoolee je parle sous le contrôle peut-être de Water ni nek Europe dinañ comprendre soo leen hein, euh, génération yu mujj handicapé je je ak ñuy bëri autiste ak ñi nga xam dañuy am problème génétique ñu bari ñu koy am wala kaaru kaaru handicapé yi su la des fois sax nit yi ñu bëri ñoo ci nek xawma ndax si vous avez fait la remarque

dañuy wér ñu am benn problème mais souvent dañuy dem ba xale yi commencé am trois ans rek ngeen ñu commencé déterminer yenn maladie génétique yi yenn feebar yi wala ñu ne dañu autiste wala ñu ne dañu am trouble euh, trouble de l'attention yu bëri lañ leen di desalee te pourtant man remarque bi rek laa def après xamaguma sax euh, cause yi fan la jóge te pourtant dañoo dem ba gis ni euh, population nit yu ñuul yi ñu ngi commencé ëpp boo xoolee ci statistiques yi c'est-à-dire boo xoolee si courbe bi dañuy naan kon d'ici dix ans wala d'ici vingt ans population nit yu ñuul yi ñoo nar a dem ba euh, ba ëpp population normale euh, euh, Salah maa ngi jégalu su dee autiste n'a rien à voir peut-être que dama dama xul xamul kii dañu gis ni popul d'ici quelques années population yu ñuul yi ñoo nar a ëpp nit yu weex yi léegi ñu ne xaaral ñu tegal leen bëgg sërëx tegal leen barrage donc bu ñu demee fii woon dix ans ñoom ñoo ñuy ëpp de nit ñu ñuul ñoo ñuy ëpp de comment ils réfléchissent en fait dañuy nit ñu ñuul ñoo leen ëpp de mais ñun ñuul ñu gën a wér ñoom dañuy infirme

par mhm. rapport les comportements mhm. voilà Comment un ce dama am doom autisme ma comprendre fa nga waxee waxuma dara autisme c'est une forme d'intelligence voilà c'est une forme ah. d'intelligence qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur intelligence c'est un problème de de c'est que on ne sait pas comment prendre ça en charge parce que bah, scientifiquement ñom xamaguñu regarde les gens des autistes qui deviennent des grands médecins à leur à leur bas âge 18 ans Légui dama ko am légui sama am en fait léegi ñu bëggoon ko si autisme il a fallu ñu def ay yeneen affaire approfondi ñu devons a xam TDAH la c'est-à-dire léegi say doom dañuy judd sax ñu bëgg la buux ça c'est vrai ça c'est vrai quand il comprend pas les choses il te dit direct autisme mais mais profondément au début c'est comme ça mais fur et à mm-hmm. mesure pour ñu jag jag pour ñu wala wax ni sa doom lii la il faut que ñu jag ko mm-hmm. ko vraiment c'était ça voilà ils prennent pas le temps de diagnostiquer ñeu rek nak di di di ki bâcler mais bon c'est c'est juste. benn waaw ben, waaw ma chérie ma yëgaat non comprendre na bu baax fi ngay waxé mais c'est que man autisme daf ma daf ma daf ma mës interpeller interpellé la la bindal ci suuf mané la autisme du maladie. mais autisme mhm. c'est un art de vivre comme ni ko Wateer waxee. Mhm. un excès d'intelligence en fait les personnes atteintes d'autisme boo dee xool ñoo gën muus sax ñi nga xamante que amuñu autisme. C'est dañuy wax né anormal ak normal mais qu'est-ce mais qui est normal et qui est anormal c'est ça la question. non parce que bu fekkee dañ ne dañ ne un enfant autiste mu ne dafa feebar alors que mu am intelligence boo xam ne daf ko dépassé ba nga xamante ne que mënu mënu ko canaliser donc kooku est-ce que moom gënul normal sax jàppe boppam ko normal. donc la donc donc donc question mi ngi foofu loolu motax tax ma duggaat maa ngi jégalu waat je salue moom mais salam s'il te plaît <laughs> damay liggéey damay liggéey di sàccaale di damay liggéey di sàcc en fait moi, man j'ai eu un collègue qui était autiste et j'ai j'ai perdu hein j'ai vraiment mis du temps à comprendre qu'il était autiste parce que il a fallu que ci un dossier nous am fi une divergence j'ai vu sa réaction donc j'ai laissé passer après je me suis dit ma je ko lan provoqué réaction bu ci alors que ma moom yàgg nañ am différence de point de vue si loolu te musul musuma woon lii quoi mhm. tu vois mais après je vais expliquer je gis ni ni pas fonctionner ne ni pas fonctionner Beaucoup le cadre bi ñu tu manam il allait plus vite que la musique quoi donc fay pour man fay nek lu dispropor ak lu lu lu incohérent alors que moom mu ngi ci ben cohérence bu wér mais par rapport ak man fonctionnement bi bi ma li ma jàngee ak ni liggé da fa nek ci benen niveau donc c'est c'est sûr que man damay am ay problème pour nek sur la même longueur d'onde après ma gis que ni bu ko da fay xaw irrité touti quoi day jóg di dox impatience parce que man je mets du temps à comprendre son raisonnement léegi daf koy très impatient day jóg dox ah, non non écoute écoute tu vois avec Ben kii bon moi quand j'ai compris ça j'ai changé ma façon de faire avec lui après c'était paisible tu vois. su waxee dëgg Walter Walter amul sax xaaral pas. Si la Black Walter boo ñëwuloon si loolu ma ne yow comprendre ce collègue. es obligé de venir dans son monde. exactement. Si tu ne viens pas dans son monde, il ne te lâchera pas jusqu'à ce que tu arrives dans son monde. soo ko contrarier c'est fini. voilà léegi day énervé léegi man li may def dama ko naan nangu dafa bu soo xee ko wéy ok léegi nag su ma ne ko ok dafay calme dafay paisible quoi il sait que je suis dans son move moom après man si laay dugalee samay wax tu vois dugal sama ay kii mën naa ma D'accord, ok oui c'est est vrai ma ne kon bàyyi ma parce que loolu daf koy apaiser le fait que tu acceptes façon de voir les choses mais si tu l'exclus un peu de ce, truc là irrité et forme pas de violence physique non non mais une violence truc quoi comportemental voilà oh. la vérité ça c'est la vérité hein. Moi, ah, quand j'ai ramené mon enfant, qu'est-ce que les gens lui disent C'est un enfant du diable, c'est ce qu'ils vont t'expliquer, Va euh. partir euh, voir les gens, mais ça n'a rien à voir. Hein. Non, non, non, du tout. Man, ça m'a donné intelligence. Il a, ces personnes, chaque, les autistes, ils ne sont pas tous pareils. Ils sont différents. amul kenn ku ak parce qu'ils sont tous différents calcul calcul. Les chiffres. voilà. mais c'est ce que j'ai du mal à comprendre Mais Ben parce qu'il code, parce qu'il ne veut pas que tu saches. Il va écrire et réécrire. Moi, c'est ce que mon enfant fait. Ah, ok. Mais mon C'est Mais si tu veux tu sais ce que tu Tu tu as Si tu tu mais que je def ay panel ci saa su xel laa pardon dama la qualité de son écriture vous bindee anglais par exemple anglais vous... mauvais anglais les bind mais sous fait qu'il a fait affaire calcul là c'est c'est un autre gars ah comment, lol là. la un mauvais anglais il fait des fautes il fait des fautes même de cohérence madame, c'est écriture ah voilà mais vous faites bu euh, arithmétique pas arithmétique mathématique. par hmm. exemple si ay calcul wala bon yi ñi def non. Hmm. moom foofu moom. Pour moi, domaine am. non de voilà pour moi, domaine am parce que dafa am fu mu fort. moi moi mon fils dañuy dañuy def entre parenthèse rek pour ñu xam lepp c'est important li ñuy wax ni voilà parce que mom il fait pas de faute dans n'importe quelle langue il suffit qu'il voit quelque chose elle a un mémoire qui photographe tout, qui part quelque, un endroit. Laisse-le, il va te faire le retour. Parce qu'il a déjà photographié tout dans sa mémoire. Ouais. Mhm. que c'est un enfant. Ouais. Elle m'a débloqué mon téléphone, elle n'avait même pas un an. Non, c'est incroyable. Voilà, c'est des choses incroyables. Mais, nous, c'est un problème parfois il faut faire attention il y a des gens ñi ñi ci bopam ku nekk ak nu muy pas def entre parenthèse parce que dañuy wax ni ñun suñu doom mais mo doon joxé mo doon biberon mais légui ñom ñu ngi bañ biberon légui ñom dañuy nampal voilà boule dafa tourner nak boule dafa tourner mais ne ne ne ne dañuy suñu ñoom ñoom ñoo dem ba xam ni. baa bi dañuy nampal dañuy neef. merci parce que li li ñuy jox moo gën a important. waaw gisoo góor ñi fii léegi xoolal góor ñi Afrique léegi nii ay genn wàllu góor ñi nekk nit ñi da ngay gis très jeune ils perdent tous leurs moyens. musique bah. physiologique et tout wutal góor mooy mais yow tamit euh, jarul ngay yow tamit sa xel mais sérieusement regarde tous ces gens là tous ces trucs là y en a de plus en plus pourquoi. alimentation c'est pas bon. regarde nos grands qui vivent en brousse là merci mais. prendre et ces qu'on connaît pas mën na la gën a yàqala ah. mais quand même nañ ko baal dinañ dellusiwaat meew bi ñuy jaay Sénégal Nestlé meew bu cher boobu est-ce que di nga ko gis fii ay Auchan ay Carrefour Leclerc. non Nestlé sax dafa baaxul. donc parce que baaxul. Bah, mais Sénégal yooyu la ñuy def produit chic. gis nga Nestlé bi ñuy jaay Europe ak bi ñuy yóbbu Afrique bokkul. man Europe sax gisuma ko bu ko gisee ci magasin africain yi laa merci ça n'existe pas ça n'existe pas.

non non Nido Nido laa bëggoon pardon. Ah, Nido, Nido on va pas. ok revenons à nos moutons léegi euh, cuubukat yi ñun liñ leen di ñaanal. <laughs> mun nañu dellu si <laughs> waaw dama leen di parce que man parfois moom dinaa su ma ma jaar seen tur parfois nag ma baal parce que sama yar bu baax bi moo ñëw. <laughs> voilà dama leen wax rek. jàppale sens boo ko waxee xamee nañ ko. waay ñoom ñëpp ñu léegi. tuubakat yi comme ñoom. fàtte nañu ni ñoom amoon nañu naqar. ba ñoom ñu delluwaat ci li ñu nekkoon comme ñoom yàqamti nañ ko woon de parce que laa moom lu ñu tëggoon ba pare la. yàqamti ngeen ko woon. wante ñun xam leen ni ñun duñ leen bàyyi. ñun duñu bàyyi de. seen de geste yëpp.

ñoom la ñuy laajte ñoom ñoo lay wax luy xew si fenêtre yi nga taxaw. ba loolu sama tey daf ñoom que bul xool gis nga booy taxaw sa fenêtre. si fenêtre yaay xam liy xew lépp si koñ bi. yeewul suba teel rek nga teel a yeew nit ñi rek nga taxaw sa fenêtre xam nga ku génn. xam nga ku génnul gis nga l'autre jour ba ñu paree suñu live bi jour samedi la xaw ma vendredi si guddi nelawuñu woon ñu continuer truc premier jour bu ñu veillé bi si kii bi mais dama def comme mairie rek te ci sama fenêtre da aéré mais ma gis kooku di dàq ji kooku di ko sàcc mu kay dàq ji <laughs> ba police ñëwee ba dama jékki-jékki police ñëw kan moo fekkee man maa fekkee ndax gis nañ ma si fenêtre bi gis nañ ma xol lañ de dañoo nekk di xool ci fenêtre di xool kan moo nekkoon après ils m'ont vu ma wax leen li xew. ok foofu nag ñenn ra xamee ni gis nga ku yàgg gis nga mairie Maguette yi ñooñu jël nañ seen retraite ils ont plus rien à faire. ouais ñoom ils sont là pour observer. voilà qui rentre qui sort qui fait quoi. tu pars en vacances xam nañ ko dellu si nga xam nga ko dem nga liggéey xam nañ ko ça fait une semaine on t'a pas entendu dañu né ah diou de gisuñu ko mu génn nañu feug këram xol lu xew parce qu'on l'a pas vu sortir on l'a pas vu rentrer Non lepp pour dal la parce que ils veillent sur leur population loolu nak africain au lieu mu veiller ci population day def lepp de mais da ci yok lu amul du veiller fu mu nar veiller li am importance du ko def ñun nag loolu mooy problème Nous loolu mooy suñu problème ñun. li am importance ñu ko wax parce que je je n'imagine pas dans un appartement un crime nekk que appartement bi les gens qui habitent dans les appartements et personne n'a rien vu personne n'a rien entendu. te ñoom seen appartement il y a pas d'isolation nous avons ne gens. Afrique n'y a pas d'isolation. nos appartements il y a l'isolation mais quand tu es quand louche les gens vont faire plus attention de cette personne pourquoi il est ça ça ça ça moi quand je sors je n'ai même pas expliqué ils savent qui vient chez moi qui rentre kan mooy eu pour sama doom ki kay ñëw di jël mais tout ça ils ont ces informations. oui xam nga li ngay wax ni euh, Freeman dafa am une femme bu me suivre j'ai entendu un jour franchement c'est une femme française hein, une jeune française elle est dans le théâtre ou quelque chose comme ça qui s'appelle Emma Il dëkk ak une femme qui palier qui palier une femme de 98 ans femme de foofu léegi ben jour parce que mom day day day publier toujours ay vidéo yu muy def ak femme mais il a jamais montré le visage de la femme musu ko wane mais day wax ak mom di filmer bopam di wax et tout mais moi ça me c'est-à-dire que qui bu ma ci mère bi ça m'a tellement fasciné que moi je la suivais tous les jours tu vois ba pare di commenter yi muy def loolu la doon suivre ça ci TikTok bi parce que ça m'avait très comment on la laa on mën ça. ça t'a intrigué waaw bah, ça m'avait ému quoi parce que mère bi. waaw les seuls elle a de la famille hein, mais bu ñu xaw sore mais ndaw si daf koy topato day dugg ci kër gi di ko toppal di waxtaan ak di ko wax comment il a passé ses journées et tout ça et tout ça j'écoute ça ben jour mère bi xale bi bu mu ñëwee mère bi dafa presque pas anglais que quoi mais <laughs> xaw mère kiko ni que mais fan nga nekkoon waxoon ma dara te dégguma sa bunt tu vois ce que tu veux dire dégguma sa bunt en fait, hier, parce que nous avons une répétition et tout ça, j'ai dû dormir là-bas. Tu vois Oui, mais je me suis inquiété, j'ai pas entendu ta porte. pour donc, du coup, xale bi quoi ah d'accord mais la prochaine fois moi quoi Je que parce que parce que moi damay quoi parce que dans jàpp ko famille am famille am la te mère bi mère il y a quelques il y a peut-être un mois. et là on un quoi là-dessus. Non, ça m'a touché parce que c'est une relation c'était extraordinaire. il daan xool Khalib que tu es trop belle ça me rappelle quand j'avais il avait 98 ans quand j'étais jeune et tout ça tu es gentil tu es belle et tout ça mais ton ami là franchement tu mérites mieux que ça hein. <laughs> tu vas y aller d'avoir.

man comme j'ai l'art d'attirer les grands-mères là. Les ma ñëw oui ça va ce voisin là Manek, c'est quoi non non Manek, c'est souffle. voilà moi j'étais au troisième mon mu au deuxième maa souffle, les gens sont sur là. Ben chemise bu ñuy xam nga ourlet bouton yeeg non, noonu wala ourlet il y a pas de souci moi je fais rien tu viens me voir nangam nangam ma ok mais moi comme n'avais pas le temps nous avons quelques temps peut-être deux mois trois mois mosuma gis quoi et puis moi tous les vendredis j'avais quelques amis qui venaient ñuy def ataaye chez moi ils devaient ay affaire jouer boulot ou des trucs comme ça mais dem léegi ben, jour rek ma toog ma dis police ñëw fëgg sama bunt man xam nga dama ñëw rek ku fëgg quoi un vendredi soir fëgg ma ñëw ubbi ma gis police mais ñom ñep xam nañ ah mais c'est c'est vous qui habitez là et tout ça ma ne lu xew ñu ne ma non maire bi nekk ci souf moo ni sa kër comme bambula quoi

bi ma xamee loolu je me suis dit que peut-être que man ni ma ko wanul que ni soxla naa ko peut-être loolu moo ko vexé comme ñoo na proposé ay services